bokk yaakaar bu ñu ci waxu la yéen i kaay gii di leen ñu xëy fekk fa professeur Moussa Diawa di jàngalekat ci lu jëm ci wàllum science politique ci université Gaston Berger nee na àllarba ji ne moom la ñu génn opposition bi génn nañu mbooloo moo xam ne takku te loole nag ñi nga ñooy waa pouvoir bi dañ see war a bàyyi xel bu baax a baax ko xeebee rek loole mooy erreur bi gën a ngande boo xam ne def nañu ko yéen i kaay gii di laas dañu xibaar naan ñu ne na daan nañu déposé ab autorisation yéen kaay gi de l'observateur Ousmane Sonko njiitul Pastef wax na nag ci rassemblement bi nga xam ne moom la waa coalition Yewwi Askan Wi doon def nag àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn nee na rassemblement la boo xam ne bu am solo la boo xam ne réussir na askan wi génn nañu jaajëfal na ñi xam ne ñooy ndaw ñi waaye nag nee na dañu ko bëggoon a rey tentative d'assassinat ndax oto bi xam ne moom la njëkkoon a dugg nag bi muy ñëw ci place de l'Obélisque ñu ko gaare woon dafa ñu daal di koy bi dawee oto bi a daanu Ousmane Sonko yàllaa baax waaye nag ba mu ñibbi duggul ca oto boobee ci beneen oto la dugg ndax oto mu dugg ba mu ñibbi oto boobu ay garde corps dañu ko doon garde waaye nag beneen oto ba nga xam ne moom la njëkkoon a dugg fa ñu ko gaare woon dafa xawoon a sori ay samba boo ñoo dem nag dina écrou yi ngir nag bu dawee rek oto bi mën a këpp ngir mu mën a ñàkk bakkanam noonu la ko xamle te nag moom nee na daal du koy victimiser wu ñiy victimiser wu mooy ñi nga xam ne ñoo doon daw dem ci kilifa diine yi naan leen Abdoulaye Wade dama bëgg tëj Ousmane Sonko ni ki démb daan nay wax ne réew mi di Sénégal mën nañoo jàpp ne yoon amul ci réew mi ndax Amath Sone Camara Sénégal fii la woote ne nañu rey Ousmane Sonko te ba léegi ni déggu leen procureur wax ci i kaay gi de Les Échos moom jiitul Pastef nee na jamono ji maanaam xeex bi day doog di commencé xeex bi day ndax ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la woona mbooleem askanu Sénégal ngir ñu daal génn mobiliser yéen i kaay gi de L'Info Yankhoba Diattara bu parti réew mi nee Sonko mi nga xam ne nag mooy wax ne élection ndax ànd naa ko xelama tuuti na lool ngir nag tere élection am ci réew i kaay gi de Le Quotidien nee ne moo am ci réew mi loole nag tax na église bi daan nay wax église bi nee na na gars yi nag delloo si seen xalaat yéen a kaay gi di Sud Quotidien église bi di woote jalo ba pare nag lànk ba tëdd sa naaj waa lu jëm ci wàllum légaliser borom ñaari tur yi yéen a kaay gi di Vox Populi nee na gouvernement bu Sénégal daan nañu dëggal ne teg nañu loxo ay rebelle lay Ousmane Sonko daan na koy weddi ba tëdd sa naaj na maa ngi dégg waaw pouvoir bi naan jàpp nañu ay rebelle nangam ak nangam ak nangam Ousmane Sonko ne ñii nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi sàcc ba maara day taale maanaam wax dëgg moom ñoom dañ koo taayee defa waaye nag jamono ji mën nañoo wax ne Sénégal amul kenn koo xam ne di nga ko wax dara ci waa APR mu koy gëma Ousmane Sonko nee na ñii si jublu mooy bëgg a loo xale yi waaye nag teewul daal xale yi danañu génn te nag li nga xam ne mooy place de l'Obélisque dañu koo bëgg nag transformer def ko place Tahrir yéen kaay gi de Le Quotidien mu ñu xibaar naan ñu député Cheikh Abdou yokku nañ seeni salaire alhamdulilah Guy Marius Sagna rafetlu na ko bu baax a baax mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi di liggéey agent yooyu administration pénitentiaire seen salaire lañ yokk yéene kaay gi de la sa ñu koy fekk fa Abdoulaye Daouda Diallo nee na jamono ji ak tolluwaayu adduna bi nguurug Sénégal def na ay jéego bu baax a baax ndax lu toll ci cent vingt milliards génn nañu ko ngir yokku salaire u génn nañ tamit lu toll ci six cent milliards ngir subvention ngir nag li nga xam ne mooy carburant bi ak courant bi bañ a yokk ba jéggi dayoo yéene kaay gi di réew mi seex waxtaan ak Alioune Diagne di artiste peintre wax na jamono ji liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey expérience bi mu si am projet yu bare bare ma nga bitim réewaa dessin ni nga xam ne moom la ko jàngee bi mu nekk xale te ak ni mu duggee ci école des beaux-arts loolee lépp moom Alioune Diagne expliqué na ko ci yéen kaay gi di réew mi quotidien wax na tamit li nga xam ne mooy tableau yi nee na aar nit mën na see dund waaye nag nekkul mbir moo xam ne mbir mu yomb la aar daal moyen d'expression la mën li nga xam ne mooy mentalité